journée bi ni ko sabab moy journée de mobilisation la tous les sympathisants militants de l'APR moo ko pour commencer suñu mobilisation parce que actuellement au niveau de la commune de Derklé dafa xaw tassaro tout ñun ci actuellement fédération lañ ne ñun ñu nekk ak Macky Sall bëgg ko. responsable yaa ngi fi nga Khadim mi ene à ma gauche Miss d'État Mbaye Ndiaye la fi ñëwal ki ci top Tina mi mooy responsable Badiane wax ci commune les autres responsables sont derrière Il y a le responsable Mbacké jeune Cogère Adja Marème qui représente toutes les femmes ñun ñëpp dañu fas and nak nag dugg ci kër yi dootuñu xaar nit ñi di ñëw ci dañuy dugg ci kër yi bi action de mobilisation pour commencer dañ ciy profité yëgalaale suñu di jaay carte mi ngi waaj a commencé te duñu toog di xaar gars yi ñëw ñun ñooy dem militant yóbbu leen carte jënd ko waxtaan ak ñoom waxtaan ak ñoom ci li président Macky Sall def ci réew mi bari na domaine ñuy xam vale bi li mu fa def bari na euh, léegi village yëpp am na am na forage dëkk boo dem ci village am na électricité terre baa ngi nii baa ñëw génn na pétrole génn na gaz 2023 lay génn donc lim fi def bari na léegi nag population bi dañoo yëgul ñu bëri xamuñu parce que ñun suñu waxtaan ak ñu bëri dañ naan ah ñun yëguñu ah contre ça mais tay dafa am masse critique bo xam ñu ngi fi and ñoo yeewi and ñoo président Macky Sall ñoo la ñuy soxla ñun génne leen indil leen expliquer leen indil leen nak suñu escasse ñu bok suñu famille lool moo ñu tax éventuellement dañuy profito di remercier encore du fond du cœur le premier ministre Amadou Ba vraiment président Macky Sall djumul mom mi ko tek comme premier ministre ñu ngi ci gannaawam di remercier également le ministre d'État Mbaye Ndiaye qui est au courant de tout et qui nous soutient. Je remercie également notre cher collègue Bilan Gom, qui fait des actions. Donc, action. Donc, l'autre dans mon action, profitez-en. On a que nous avons commencé sur une vente Nous avons 7 militants, 7 militants, 7 bases, des porte à porte, des petits curry, c'est